asalaamaaleykum euh, mbokk yi waa Sénégal maa ngi am mbégte man Aliou Mamadou ja jàkkaarloo ak yéen ci début wu campagne électorale bi euh, di leen wax ni tey sunu réew fi mu toll naxari na ñun ñëpp tey sunu réew li fi am te ñu gis ko ah jàpp naa ni am na beneen taxawaay boo xam ne réew mi tey war nañu ko taxaw ah may wax nag ne ñun sunu programme nit ak naataange nekk na programme boo xam ne dañu ko tëral pour génne waa Sénégal ci situation yu metti yi nga xam ne ci la ñu nekk accès au service sociaux de base gis nañ difficulté yi nga xam ne am na ko nit ñi pour ñu faju problème la pour ndox mu sell ñu mën ko am mën ci naan problème la éducation gis nañ ni ay difficulté ak ay problème la ah yeneen yëpp yi nga xam ne ay jafe-jafe la yu nekk ci réew mi sunu programme nit ak naataange loolu lay jéem a ñëw pour ànd ak yéen waa Sénégal ñu saafara ko li nga xam ne moo fi nekk ci injustice sociale ñu taxawu ko li nga xam ne moom la ñu soxla ci réew mi ci boole waa Sénégal parce que sunu société divisé wu na te ma jàpp ne war na am liggéey bu am solo boo xam ne daañu ko def pour réconcilier les Sénégalais liggéey boo am solo boo xam ne war nañ ko def pour avoir un pacte social fort ba nga xam ne Sénégalais yépp dinañu mën a dugal seen loxo ci ni nga xam ne noonu la réew mi war a doxe ah loolu nag mooy sunu engagement loolu mooy sunu ambition teg ko nag ci dëgg politique boo xam ne dëgg moo ko lal politique boo xam ne transparence moo ko lal parce que sénégalais yi war nañu xam bu baax a baax li nga xam ne noonu la ñuy doxale seen réew noonu la ñuy utiliser seeni ressources mais surtout teg ko ci confiance contrat social boo xam ne dañ ko war a renforcer entre les sénégalais mais surtout nag ñu dellu ci valeur sunu ay valeur yi nga xam ne moom moo fondé sunu république valeur yi fondé sunu société valeur yooyu tey ñu jàpp ne valeur yooyu dafa jeex sénégalais sénégalais loolu mooy nit ak naataange développement boo xam ne ci nit lay sukkandiku ci nit lay jóge dellu si waat ci nit bu ñu defaree nit ba mu baax ba mu am conscience citoyenne bi nga xam ne moom la war a am su ko defee nag ñu mën a jublu ak nit kooku taxawu ko ci naataangeem ci dundinam pour yokk ko ba dund gi gën a baax ba nit ñi gën a am ay facilité incha allah programme boobu di nit ak naataange dinaa ci ñëwaat incha allah ci fan yi di ñëw ci campagne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah